waaw maa ngi tudd Abdou. dëkk Pikine Guédiawaye. waaw sama kàddu moom du bari quoi waaw. ndax man li ma jëlee Pikine indi ma ba fii du lenn lu dul projet Ousmane Sonko laa gëstu xool xam ne lii mooy avenir réew mi te ñun nag jeunes du ñu xool. président Ousmane Sonko ñu koy faagaagal di ko fexeel xam nañ fi jë fi ñu a moom liñ bëgg a def Khalifa Sall def ko Karim Wade lañ bëgg def Ousmane Sonko loolu duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te dinañ xeex ak Ousmane Sonko fii di ko may ndam incha allah loolu lu may wax